Euh, déposé naa à la grande fierté de nos militants defe naa ñoom ñëpp lii lañ doon xaar ci man ma ñëw participer ci élection yi parce que c'était une demande ñep dal dafa naa xam naa dinañ bëgg ci lolu ndax dañ ma doon xaar ci élection yi donc c'était une occasion à ne pas rater donc andana euh, ak ñi nga xamante ñun ñoy jité coalition bi avec euh, donc El Fall Makati et mon ami Babacar Mbaye Diop mom kay waxee Mbaye Seck donc ñun ñett ñoo jité coalition bi donc ñëw nañ fi tey déposé wan waa Tëngéej yëpp né dinañ participer ci élection locale yi di ñëw ci ville bi ak ci commune de Rufisque Est man mom ñëpp xam nañ ci man lima mel gëwuma affaire coalition ñun liñu gëm moy dañu wara dem élection dem nañ élection bu coalition bu yaakaar né ñun mëna nañ la néewal doole donc c'est un problème ñun dañuy ñëw daal pour participer pour gagner te bu ñu gagné c'est pour Rufisque donc on ne représente personne d'autre que les Rufisquois qui croient en nous donc ñun suñu coalition Tëngéej moo ko tax a coalition de l'espoir pour indi changement yi nga xam mom moom la Tëngéej soxla. lolu xamna né dem si di si di bakku ji nga bayyi si jege jege si làmb ji bakku mo gën xamna né le 23 lépp dina leer inshallah